asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xam naa texte bi ma dugal nag ci français lañ ko bind waaye la xabaar la boo xam ne bii source bi mooy Sénégal 7 ñoo ko génnee am na nag yeneen groupe yu ko yu yu ko reprendre euh, wisaare ko waaye comme groupe bi ñëpp mm, ni Aboubacar Diallo di wax mbind mi déparé càmmoñ jëm ndeyjoor xëy na ñëpp miinuñu ko lool waaye buñ doon tënk wax ji daal mooy Euh, texte bi li muy firi mooy dafa am benn oustaz wala benn jàngalekat alxuraan metre coranique boo xam ne bii daal euh, ci belle-sœuram nag mooy sa rakku jabar wala sa magu jabar waaye rakku jabaram ji am fukki at yàlla ak ñeent daal ci la ci la doon sëgg daal maanaam noonu laa ko mën a waxee daal xanaa euh, wax ji day xaw a diis nag waaye ngeen baal maanam daal xanaa daal mu ko doon sàkko ba koy tëgg tëddee lu baree baree baree bari ba xale bi daal mujj xëy na mu sonn ci loolu wala daal mu xëppi ay bëtam boole kook magam magam nag bu jigéen mooy jabaru waa ji euh, di jàngale alxuraan euh, moom it mu wax ko baayam ba coow li na kur daal ba gendre gendarmerie lañu mujj yëf yi nag euh, ñun xabaar bi nii rek lañ ci jote wax dëgg yàlla dañoo jottali rek ñu un maître coranique transforme sa belle-sœur de 14 ans objet en objet sexuel à Touba waaw loolu daal lañ wax ñu tudde ko nag prédateur sexuel xam naa daal ku xaw doy waar la euh, waa ji nag waxuñu turam dëgg dëgg dëgg waxuñu nu mu tudd dañoo def m rek daal def busu loolu nag du tax nga xam kan la waaye xëy na ñam ñam yitteel ñoom xam nañ ko waaye daal kuy euh, maître coranique la ni ko ni ko texte bi ñëwee xale bi fukki at yàlla ak ñeent la am doon na ko jëfandikoo lu baree bari te mooy rak ko jabaram ci kër gi euh, fi muy jàngale alxuraan yàlla dogal na nag mbir mi dem na ci loxoy gendarmerie kooku nag beneen affaire la xam naa arrestation rek moo ci am.